waaye nag du ma nangu kenn di mu yóbbaal si ay caaxaan man coalition wallu Sénégal laa bokk président Ablaye Wade mooy suñu kilifa mooy suñu baay di taalibe Seex mbamb moom lañuy déglu dégluwul keneen ci mbirum politique bi nga xamante ni aussi am na fan yi ci ginnaaw li ñuy wax motion de censure te article quatre-vingt-six ci constitution bi wax ko article 97 ci règlement intérieur assemblée nationale ñëw leeral ko biñ ci àggee dama jël décision jël sama taxawaay wax ni man Cheikh Abdou Bara Dolly lépp lu ñuy def ci assemblée nationale wala lu mën doon buñ ma ci boolewul xamuma ci dama ciy maandu ndax loolu la ma sama diina sant te loolu la ma sëriñ bi sant bi nga xamante ni ñu ngi koy wote ñëw naa ba ci ñoom ma laaj leen muy waa Yewwi Askan Wi ni leen lii ngeen di def. damaa bëgg bu dee lu ñu xamante ni ñëpp ñoo ko war a bokk ñu waxtaanee ko ñu yemale ko seen biir nit nag bu fekkee amul expérience parlementaire si njuumte lay dëkk ndax li ñu def juróom fukki député ak ñett ñoo ko si ñeendoo te fukki député ak ju ak juróom-ñaar moo nañ ko def te bal ñu koo defaat 2023 day ñëw kon yaakaar naa ne bu ñu waxtaanoon da nga si gis Cheikh Abdou baat Dolly da nga si gis opposition bi yëpp ñu bind seen tur mais boolewuñu si woon loolu moo tax bi ñu àggee bi. man ma wote abstention ambulon yii mooy yi ñu joxoon bind sama tur Cheikh Abdou Mbacké ambulon yi moo nekk nii boo duggee ci biir danaa la ñetti xob ñoo fi nekk bii mooy boo bëggee wote waaw bii mooy boo bëggee wote déet beneen bi mooy boo abstention mooy bin baare ku ne xam na ni abstention bi laa dugal ci biir kees gi mooy dama see maandu andumaak Yewwi andumaak benn Bokk Yaakaar ñaari xob yaa ngi nii mu leer